sant rek alhamdulilah. foo ne. fan yii maa ngi tournoi maa ngi tournoi si àll bi. lenn rek laa bëgg. professeur Mané laa bëgg. la ma doon tàmm professeur Mané lan la. non ma pa professeur Mané maa moom làmb la day neex. barke Serigne Touba Mbacke. fu ngeen jaar. non yaa ma gën a xam. dañoo war a daje maa moom. dafa am fu ngeen jaar wala dafa am fu mu jaar ak sa mbokk. te dama xool xam na ni carrément làmb la maa moom. na ñëw ñu bëre professeur Mané toog na lu yàgg bërewul na ñëw ñu bëre. bëre bi nga bëree Guédiawaye a bëre waatoo. bëreeg bëre waatoo instant yi adversaire laa bëgg mais professeur Mané laa gën a bëgg barke sëñ Bamba pare na moom professeur Mané ñëw ñu bëre dina ñaanal seen télé bi jëm ba si kaw barke Serigne Touba Mbacke fi télé yi jëm. professeur Mané. déggu ma. professeur Mané. laa teg su instant moom rek bëgg ma libéré ko. billaay wallaay. loolu dinañ ci dox ba déggu ma. dinañ ci bëgg jàppale ma su loolu. bu ma fayee bëgg naa. 1500 sax dama koy